David jaata maa ngi lay nuyu. maa ngi lay sant di seen auditeurs ak auditrices yëpp. voilà David jaata nga nekk maire bu Kafountine actuellement am benn problème mu avancée de la mer est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun largement si jafe-jafe boobule. waa jërëjëf ci occasion bi ngeen ma may ma mën a communiquer ci li nga xam ne moom moo xew jamono ji fii ci Kafountine voilà pour ñi xamul Kafountine dañ koy dégg rek. Kafountine mi ngi ci région Ziguinchor département Bignona arrondissement Kataba 1 mu nekk commune boo xam ne commune côtière la mooy commune yi nga xam ne ñoom ñoo sës ci ci géej gi donc euh, euh mbirum érosion côtière bi dafa bokk ci li nga xam ne moom mooy sonal euh, Kafountine Euh, pour ñi ñit ñi mën a comprendre ñi ko xamul mën nañ ko méngalee ak Mbour mën nañ ko méngalee ak euh, Saint-Louis mën nañ ko méngalee ak euh, Bargny wala wala Rufisque donc tey phénomène bi nga xam ne moom lañ Sénégal doon moo sonaloon Sénégal ci wàll côté Saint-Louis Bargny Rufisque tey moom moo nekk di xaw fii ci Kafountine pour nit ñi comprendre avancer avancé mer léegi li xew jamono ji barki barkaat démb géej gi dafa avancé avancé boo xam ne dafa dafa dafa jéggi dayoo te dafa yàq lu bari moo tax nu taxaw tey pour alerter euh, aviser aussi euh, autorités centrales yi pour ñu gaaw ñëw ñu wàllu population Kafountine parce que euh, fii li géej gi di nangu mooy li nga xam moom mooy quai de pêche bi tey boo laajee acteur de pêche yi dinañ la ne Sénégal yëpp géeju quai capêche quai de pêche Kafountine moo ëpp léegi lu muy génnee jën mais fi mu toll nii géej gaa ngi yóbbu quai de pêche bi tey euh, ci wàllu tourisme bi aussi bi euh, ngi def ay dégâts yu bari ba ñu ngi ragal est-ce que ñu dem ba euh, ay bakkan rott ci loolu suñ ko waxee du tiital nit ñi mais li nga xam ni nit ñaa koy dund barki démb li nga xam ne yàlla moo ñu moo sutural euh, population Kafountine mais bu dul loolu loolu catastrophe mooy am parce que géej gi dafa dem ba nangu ba lekk euh, nu mu tudd sax mbedd mi ba câble électrique yi haute tension yi nga xam ne dañu dañoo gas suul gaal yu kii ci yooyu yëpp tey boo demee ñu ngi sibiti Sénélec dafa mujj ñëw couper courant bi pour euh, éviter catastrophe donc loolu yëpp mu doon danger boo xam ne euh, tey mi ngi yoot euh, population bi moo tax ñuy woote wàllu d'urgence voilà parce que situation bi urgence la tey euh, mbir mi dafa garaaw ba nga xam ne foog nga gis ko pour nga mën a comprendre li nit ñi di di di di di di di dund donc loolu moo xew jamono ji Kafountine depuis euh, la nuit di vendredi ba jamono ji ñuy wax ak yow hmm. donc fi mu toll jaaxle Euh, les acteurs de la pêche muy mareyeurs yi muy pêcheurs yi muy transformateur de ci de cii nii muy population bi seen bopp muy touristes yi instant bi nii ñëpp ñoo ñoo jaaxle voilà te te te loolu aussi David Diatta bu ñu doon taxaw un peu si cause yi maanaam li ko waral si sa euh, xalaat lan la exactement. waa li ko waral mooy les effets des changement climatique géej gi mooy avancé. donc phénomène la boo xam ne phénomène nature c'est un phénomène naturel mais c'est aussi phénomène anthropique euh, loolu moo ko waral changement climatique bi ak avancée géej gi ñëpp xam nañ ne euh, géej gi dafay avancé bu baax a baax surtout les communes yi nga xam ne c'est des zones côtières ñoom ñoo gën a impacté tey loolu moo waral loolu donc avancé géej gi moom mooy dem ba commencé nangu fi nga xam ne moom mooy dëkkuwaay yi euh, nit ñi loolu nag moom la Kafountine di dund euh, jamono ji loolu nag dafa laaj ay solution yoo xam ne tey mairie amul jumtukaay yi population yi amuñu jumtukaay yi état moom moo war a mën a góorgóorlu avec euh, ay partenaires pour ñu mën a teg ay mesures yoo xam ne mesures yu pour pour freiner avancé géej gi ah. am nañu expérience yi euh, feneen moo tax euh, may woot lancer appel bi pour alerter sensibiliser les partenaires techniques ak l'État pour ñu xool nan la ñuy fexe ba ñu ut ay ay ay mesures pour freiner euh, avancé avancé géej mais ñëpp xam nañ ne c'est un phénomène naturel mais bu ñu jàppee ni c'est un phénomène naturel mënuñ ci euh, croiser les bras euh, lu muy jur mooy gën a graaw donc euh, ñun on est conscient que pour euh, régler loolu du du yomb dafa laaj ay moyens yu yu diis mais euh, dundu nit ki la vie humaine amul njëg donc moo tax dañ ci war a farlu bu baax a baax pour sauver euh, situation bi. Euh, ci situation bi nga xam ne yéen a ngi koy dund David euh, Diatta ban appel nga si lancé surtout njiitu réew mi. ba appel bi may lancé mooy ñu wàllu si population bi d'urgence parce que population bi daf ko soxla ñu xam ne urgence la urgence mënul weesu lii. dañuy faral di xaar ba ñu xam ba mu am ay dégâts dégâts yoo xam ne mooy ay perte matérielle wala en vies humaines pour ñu doog a ñëw taxaw balaa ñuy yegg foofu man je pense que il est encore temps pour ñu sauver situation bi su ma appel bu may lancé mooy appel d'urgence et de de de de alerte alerte d'urgence et de de secours secours d'urgence pour que ñu le plus rapidement possible ñu ñëw xool situation bi xool yan solution lañ ci lañ ci euh, la ñuy adopté ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo xarañ ci wàllu woowu pour ñu ñu jàpp si Mhm. Euh, léegi euh, ñu lay laaj aussi ci situation tourisme bi euh, naka la demee foofu ci ci Kafountine parce que ku wax Kafountine wax Casamance le sud du pays xam ni tourisme amoon na fa doole fi ñu toll nii tourisme bi mi ngi continuer di am doole wala mi ngi am ay gàllankoor. non tourisme tourisme baa ngi am gàllankoor bu bu metti metti parce que ay jamono boo nee tourisme Casamance région Ziguinchor. Cap Skirring ngay wax boo tuddee Cap Skirring après Kafountine ngay tudd tey phénomène bi may wax nii muy érosion côtière ba nga xam ne euh, tey Kafountine ñàkk na plage yu bari tourisme yi ñëwatuñu parce que dañuy bu ñu ñëwee dañuy am déception li taxoon ñu doon ñëw loolu amatul donc euh, loolu dafay nekk impact bu bu réel bu négatif boo xam ne moom euh, dafay moom nu mu sax dafay peser ci tourisme bi donc loolu lu réalité la donc tourisme bi nu mu daan doxee bu njëkk doo doxatul noonu léegi loolu benn facteur la alors beneen facteur bi mooy euh, tudd nga ko sànq ci ci français muy par rapport à la situation de la Casamance tey am na ñu bëri ñoo xam ne dañ leen di eh, décourager par rapport ak insécurité ak yooyu noonu mais tey mën nañ ne jàmm jaa ngi Casamance même bu dee ay nay portion quelque part de euh, di par ci par la loolu dafa bokk ci phénomène société sécurité bi am fii Euh, li may wax toujours moom moo nekk partout que ça soit à Dakar et autres là les phénomènes sociaux yi am fii Dakar euh, même euh, dans les pays développés donc loolu aussi bokk na ci li nga xam ne moom moo tardel tourisme bi fii ci ci Kafountine par rapport à la destination parce que tey bu ñu nekk Casamance ou Kafountine zone rouge ñu découragé touristes yi ñu ñëw ñi nga xam ne ñoom ngi gis par benn benn ñoo xam ni xam nañ fi miin nañ fi ñoom ñooy jël seen responsabilité ñëw mais sinon koo xam ne mosu fi ñëw bu ñu ak gisee lu rek du ñu du ñu ñëw euh, du ñu ñëw Casamance donc situation bi euh, par rapport au tourisme euh, lii moo fi nekk. Mm-hmm. ñu wax aussi un si processus de la paix en Casamance euh, fi ñu toll nii naka la mbir yi demee foofu. bon sant yàlla vraiment sant yàlla man bokk naa ci ñi gëm ne léegi jàmm jaa ngi Casamance. Mhm. bokk naa ci ñi koy dund te ku fi ñëw tamit da ngay gis ne loolu la moom laay wax moom laa doon wax sànq euh, dañoo dugal ci xelu nit ñi euh, insécurité ba nga xam ne ñun sénégalais suñu bopp ñi nga xam ne xamuñu Casamance pour ñu ñëw fii dañuy am xel ñaar mais boo xesee ba ñëw da ngay gis ne voilà lii nit ñi di xalaat ak li am ci terrain bi bokkul moo tax tey ñun ñëpp dañu war a farlu euh, pour sensibiliser et encourager kenn ku nekk ci dynamique de de paix boobu bi nga xam ne vraiment moom moo nekk euh, fii ci Casamance. léegi am na loo xam ne nit ñi dañ koy jaawale moom mooy moom laay tuddee les phénomènes sociaux mën na am comme à Dakar mën nga tourner des agressions par-ci ou quelque chose yooyu noonu yooyu c'est lié au phénomène social yoo xam ne amul jotewul dara ak ak rébellion du ñàkk des fois genre situation boobu am mais loolu encore une fois de plus jotewul dara ak rébellion Casamance man bokk naa ci ñi gëm ne jàmm jaa ngi fii bokk naa ci ñi gëm ne dañu war a encourager sénégalais bu nekk mu nekk ambassadeur jàmm ji ñëw découvrir bokk naa ci ñi gëm ne euh, war nañu encourager euh, ñi nga xam ne nekkuñu sénégalais bëgg a ñëw ñu bàyyi leen ñu ñëw pour découvrir jàmm ji fi nekk pour le développement du Sénégal à partir de la Casamance. voilà kon ñu ngi lay euh, remercier bu baax a baax David Diatta. merci beaucoup. voilà ñuy fàttali ni David Diatta yow yaay maire bu Kafountine en tout cas merci ci disponibilité bi jërëjëf. merci merci maa ngi leen di gërëm di leen sant ci opportunité bi ngeen ñu may aussi pour ñu communiquer askan Sénégal communiquer askan Sénégal.